vraiment ginnaaw bu santé sante yàlla julli ci yenent bi euh ñuy njëkk wax association appétit par solidarité partage bi nga xamné né ñoma ñoo tay tànn ma seen def ma parrain man ak sama soxna khadiba ji parrain seen ngel bu ñuy organiser deuxième quinzaine mois d'octobre xam nga tay tout choix signifie renoncement à autre chose suñu la tànnee rek amna na lu ñu kon nag tànn bu ñu ma tànn dafay nekk loo xam ne ne mbégte bu rëy boo xam ne ne am naa ko ci euh, kontaan tamit bu rëy boo xam ne ni am naa ko ci te loolu nag sabab bi duñu ko santee lu dul Rose Diokh bi nga xam ne depuis 2009 ñu ngi ànd ak moom fii ci biir unité 7 di liggéeyal son excellence le président de la république moom sama yaay Kumba Konaté mu ngi koy wax bu ñu fi organiser fii ci Bayal unité 7 di fi installé si di comité def fi une animation politique boobu ah, ñu nekkoon fii unité set APR bariwul kon dañuy wax ne yoon bi lëndëmoon na ñu xuus biir Parcelles Assainies dugg unité par unité jaay suñu candidat bi nga xam ne ne amoon nañu ko ak programme de campagne bi nga xamoon amoon na ko muy yoonu yokkute tànnoon ci ndaw yi tànn ci jigéen yi tànn ci le monde rural nekk un excellent programme boo xam ne ne partagé woon nañu ko ak parcelle waay yàlla dimbali ñu ñu ci bëri ah adhéré ci programme bobo, ànd ak yéen ci projet politique bi ba yàlla may ndam son excellence le président de la république 2012 bu mu yeggee indi programme yu am solo tëggaat lu ñuy wax le plan Sénégal émergent ne a ah, man yéene bu am pour Sénégal mooy travailler pour le bien-être de la population nekkinu askan bi jëm kanam mu sumb liggéey bu am solo bobo, wax dëgg yàlla liggéey ko tamit liggéey bu mucc ayib

wax bu mu ñëwee ñëpp seetlu nañ ko bu mu jëlee jëlaatee nguur gi 2019 lu mu njëkk a def mooy tàllal loxo Sénégalais yépp ku jee politique bi ak ñëpp nee leen ah Sénégal ñun ñoo ko bokk ñëw leen ñu liggéey senegal parce que lu lu ñu ñor mooy nekkinu Sénégal dem kanam xar kanamu Sénégal changé kon comme ñun ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk Sénégal Sénégal kenn mënu ko xar ñaar kon ñëw leen ñu liggéey jëmale Sénégal kanam wax dëgg yàlla am ñu ñëw toon euh, wuyu si ko si ñu ciy liggéey liggéey bu am solo ba àdduna wërngal këpp seede ko yàlla dogal lu muy dogal mbas bi ñëw ah lëmbee àdduna bi lottal ay dëkk yoo xam ne ne kenn xalaatul woon ne ci wàllu économie fu ñu tolloon mbas bi war na leen mën a nërmal ñu tagg ci Sénégal ndax taxawaay bi nga xam ne ne ak jumtuwaay yi nga xam ne ne son excellence le président de la république jëloon na ko ba wax dëgg yàlla sur le plan social ñu accompagner Sénégal yi ba mbas bi ñu bañ koo yëg bu baax a baax kon tey ma waxaat ko mbégte bu rëy la ñu am su fekkente ne samay mbokk muy samay jaam séeréer yi tànn nañu man seen buur pël bi nga xam ne dafa am soxna joolaa <laughs> tuddee ma seen ngël bi ah du ñu def lu ci di kontaan rek di ci invité suñu am di jàmm yépp ñi nga xam ne suñu àndandoo politique yi ñu waajal ko mois d' octobre muy ñu bëgg mu nekk événement bu rëy bii fii biir Parcelles Assainies tànn bu ñu tànn nag biir Parcelles Assainies tamit wax naa ko sànq commune bu am solo la sur le plan électoral parce que commune boo xam ne ne 100000 électeurs boo demee ba dem ko gis nañu ñuy wax ne ne ku bëgg a gagné Ndakaaru il faut nga gagné Parcelles Assainies gagné Grand Yoff kon Parcelles Assainies nekk na un vivier politique boo xam ne ne benn homme politique caaxaaneewu ko. kon nag su fekkente ni président de la république fi ay ne ah ñu ko fi taxawal di fi rawatina président muy ah séeréer séeréer laa koy wax xaw ma tukkulóor koy wax mais damay xam ban ko wax bubu lam lay di wax mais ñu ngi wax ne séeréer yee ko yar kon moom ñaari tànk la taxawee mën nañ ko wax séeréer comme mën nañ ko wax pël kon forte communauté séeréer bu nekk bu ñu man ma nekk ñu ma seen ngel bi ah du ñu dem lu dul fédérer rek toutes les forces dem ci ngel bi nee laat ah gungewaat leen seen doom muy président de la république ci jongante yi nga xam ne ni mu ngi dë dëgmal muy élection locale yi ak élection législative ak élection yii di ñëw ah président gën ci am doole. ñoo ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant monsieur Ba euh, bon man mi xawuma ko sax sama jigéen bi moo ñu booleeg moom mais day def politique te bëgg lu avancer loo ko xam. comme ñun si yooyu la ñuy dox tey ñun dañuy wut ku ñu jàppale pour ñu jàppale la ñu ne xaaral ñu ñëw gis ko ndax am na ay politiciens yu bari yu fi ne wuti wuñ leen mais moom dañoo ne kii nitam la yàgg na liggéey ak moom ñu kon xaaral ñu ñëw tey nuur si ko xool ko waxtaan ak moom comme dañuy tëgg ngel chaque année chaque janvier lañ doon tëgg ngel mais ak mbas bi nii moo tax bu daaw bi amul ñu ñëw nuur si ko tey indil ko ay teraanga comme ñun séeréer yi nu ñuy tàmm di def guro bi ak tàngal bi pour laaj ko ndax dinañ mën a accepter ngel bi finalement d'accord na ñu kontaan si lool di ko ko gërëmee te di ko ñaanal yàlla tamit fu mu jublu yàlla na na ko fa yàlla jàppale. ngel bi dina am le deuxième week-end octobre bon dañ koy organiser pour. niñ ko doon organiser dañ pour jàppale nit ñi néew si doole yi ndax ñun déjà suñu génération bi am na yoo ñoo xamante ne ñii ay xel yu kii lañ ñii ay handicapé lañ ñeent ñi waaw léegi dañ chaque fois buñ ko tëggee ba pare dañuy partager xaalis bi jàppale néew si doole yi après li des jox ko li si ëpp sax jigéen yi lañ koy jox ñu partager ko kii ko après ngel bu jege si waat ñoom ñu dugal si waat ko ak li muy jur Malam bo joxe 5000 cinq boy boy booy indi 6000 ngay indi am nga yeb pour jappale nit ni daal. ma ngi tuddu Rose Dior deuk unité 7 Ba deuk ak man ma yag ak mom ci politique bi ma nek catholique muy pak lepp lu mu am ci yéenim rek jox na ma ko ma sédd ñi ma nekkat samay dëkkandoo ma and ak mom nak and bu yag te rafet sama association séeréer bi groupe appétit am ngel ñom ñi ñu ngi dëkk fu sori ñi dëkk parcelle ñu ne ma Rose ñun de caserne bi lañu ñuy tëggee ngeel bi mois d'octobre soxla wuñu kenn chaque heure bu ñu waxee nga ne da nga am koy political ko tudd Jibrine bax ndax guddi boobu ndax mun nañu mun nañ ko tuddee ma ne leen amul benn problème naa waxtaan ak sama jib sama président ma ñëw ne Jibrine man de dama am ngel yow laa ko bëgg a tuddee guddi boobu yàgg madame mu ne amul benn problème ma kontaan trop nag teewaay bi ak ni ma ko nangulee lépp Jibril nag dafa yàgg ak man dama yàgg ak moom tamit waaw kontaan ci moom trop waaw mënuma ko fay ci dara mënuma ko fay mais ñaan yàlla mairie parcelle nag laa ko yéene yàlla na ko am mais sim naa ko mais def na meeke fop a séeréer as koy felee nee na baax mhm. i njexi ngeel newtina Jibril Ba foo tewum madam Ba euh, i ngeel ne def ka le 5 ke deuxième dimanche octobre jabiyana fakkam agogola serer simnama nunnuna fop kino kini gonum fay simangolum uh, to simna jibirin ba fo madamum madam ba simin we ngetna men nuna fop kino kini gonum fay simangolum to simna groupe apetife andone ten taxu boy mbaf to mbajay ngel na andone ref événement fa mak ref ke ka andone mom fop ana simna we unité 7 fe we parcelle fop to kan ka chauffeur deuxième weekend mois de octobre to ngeda fop fedan be sava danga i madin na jam kino kin kete buna ten fedan roho fi fiyanam ten jibirin ba asiza le le fe dan roho do ya donom mana to num fa madam ba ke nan der nun feɗan ba wat muk to hedana fop jam be sava ngay no fop madin waaw to heɗa fop madin na jam falalo